yoonu xombal pire mais waan de 7 boo xamee ne war nañ ko goudronné mais également fi ñu romb depuis fanaay ak ba ñëw ba gamaaj yi war a dem njum et cetera gis nañu ne soxla na ci biir dëkk bi ñu jàppale leen bu baax loolu nag su ma toogee sama morom papa yi suma maam yi day laaj ñu dimbali ñu gën a xamee ne sàmm yi dañ leen wala dimbali pour que ñii bu ñu retraité ñu retraité ak jàmm ak salaam lépp lu ñuy def pour seen dund mën a yomb dinañ ko def ndox ndox mi dañ fexe ba incha allah Sénégal fépp fu ñu nekk ñu am accès à l'eau électricité également ñu am ko ndox bi danañ ko jéem a defar fu nekk courant bi réduire ko bu baaxa a baax a baax wax ne encore une fois dinañ jàppale jigéen ñi dinañ jàppale góor ñi dinañ jàppale mag ñi ñi nga xamee ne ñi ngi ci retraité danañ fexe par exemple pour que seen pension de retraite mu yàlla may leen ñu yokk ko ñëpp mën cee fa gis seen bopp. beneen bi nga xamee ne danaa ci wax aussi mooy wàllu njàng mi étudiants yi. ñëpp xamee ne ne système bi ñuy jàngee gudd na lool. parce que système LMD dafa bari xale yi dinañ def lu ëpp sept ans huit ans ba dix ans ci université yi te loolu bari na. incha allah bu ñu ñëwee on va réviser on va revoir le curriculum et la durée de la formation LMD pour que les étudiants puissent à temps faire leur étude faire leur formation et pouvoir retrouver le marché de l'emploi pour le bien de la communauté de la société parce que nous trouvons assez énorme, assez long, ce cycle doctoral au Sénégal comme dans beaucoup de pays. loolu day impacter socialement les familles ndax parfois xale bi kenn la ci kër gi mu war ñu yaakaar ko donc nuñ ko mën a wàññilee durée bi ba mu mën a géele génn pour dimbali waa juróom dañ ko def. beneen bi également mooy bourse yi dinañ fexe incha allah maximiser ko te doubler montant bourse bi incha allah dinañ gën a subventionner nourriture bi et étudiants yi ticket restaurant yi. dafa xaw a cher ci xale yi pour dinañ ko wàññi ba nga xamee ne ku ci nekk boo ñëwee di nga mën a lekk surtout xale yi nga xamee ne dañoo gis ne fi ñuy jàngee amuñu fa logement amuñu hébergement ñu jóge ci ay région ñooñu bu ñu ñëwee lépp luy lekk état moo leen koy jox gratuitement seen transport également fi ñuy loger ba ci université bi également université yooyu état moo leen jox ay bus wala ay carte yoo xamee ne dañuy dugg ci bus yi dem université aller retour te duñu fay dara ces mêmes également danañ fexe ne ba nga xamee ne tout ce qui est fourniture scolaire année bi yëpp dès la première année dañ leen koy jox loolu mooy li nga xamee ne dinañ ko def de façon concrète pour les étudiants ñëpp ñi nga xam ne post doctoral la systématiquement bépp entreprise boo xamee ne Sénégal moo la jox kayit dinañ la def ba nga xamee ne jaw di nga recevoir les étudiants pour leur formation pratique de façon claire bu ñu paree également ñu dimbali leen pour le recrutement facile pour le bien de la du Sénégal et de la communauté amul benn secteur bu ñuy bàyyi dans le cadre de l'enseignement supérieur